man may tekkil Sidi ak Laasana wax bi ci tribunal waxtaan bi ngeen di ñëw dégg man maa koy tekki ci allemand jëmale ko ci wolof ak wolof jëmale ko ci allemand ci lañu amal benn waxtaan ci diggante ñun ak euh, magu euh, Mohamed Dramé Sidi ak Laasana Dramé ñi nga xamante ne buñ ñëwee Allemagne ñoom tamit at lay tollu ngir fekke ate bi liñ si dégg nag mooy ñoom seen yëg-yëg ak seen gis-gis ci bërëbu àttekaay bi nga xam mooy cent trois fii ci tribunalu Dortmund lu ñuy jéem a xam mooy ñoom lan la leen di def ñu fekke procès bu mel nii naka la ñuy dundee juge boo xamante ne waxam wax bi leerul te ñoom dañ leen koy tekkil ci saasi maanaam ñii di wax dañ leen koy tekkil directement waaw dafa expliqué ne euh, ñu ngi fii nii ak yéen ñaar euh, mu wax seen turu euh, rajo bi et que ne euh, tey dañu ñëw tey te mooy vingt sixième jour procès bi donc mu bëggoon laajte yéen naka ngeen yëgee seen bopp par rapport ak procès bi yëpp ak euh, tey naka ngeen euh, naka ngeen ko sentiree tey. bon ne ko ñun instant bi ñu toll nii yëgaguñ suñu bopp ndaxte dégg bi feeñagut à chaque fois dëgg la tey la vingt vingt sixième jour n'est-ce ñu ngi ñëw fii nii te daa mel ni si benn wax bi la ñuy windeelu rek waaw. waaw mu ne euh, léegi daf leen bëgg laaj seen dundin fii nii ci euh, Allemagne en général ak euh, Dortmund en particulier naka ngeen koy dundee nit yi nekk seen wet ndax nit yu baax la wala nu mu demee donc yéen naka ngeen sentir seen bopp fii nii daal. ne ko loolu bu ñu ci questionné dañ ci sawar a tontu parce que eh, ñu ngi mel ni ñu ngi suñ suñ dëkk waaw ñu ngi mel ni ñu ngi Sénégal parce que ay nit yu baax ñoo ñu encadré waaw gisuñ si ñoom benn sikk ñu ngi ñuy xelal ñu ngi ñuy jàngal aussi lu bëri loo xamante ne ni ñun xamuñ ko woon aussi ñu ngi am kontante bu baax. si ñëw Allemagne fii nii di gis lu ñu mosut gis di eh, eh, dund ak nit yi nga xamante ne ni ay nit yu baax lañ waaw bu dee laasana tamit mën na cee sànni bi yoon après. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax comme te lu mu wax ne suñ dund fi door moom ñu ngi si sant yàlla bu baax comme te xamante nañu fekk ay nit yu baax bu ñëwee fii tamit nekkul loo xam ne dañ koo rëccu waaw ñu ngi si ay loxo yu wóor ci ay loxo yu baax waaw ñu ngi sant yàlla bu baax daal. waaw nee na moom lu ko intéressé ci pour xam ko mooy naka ngeen di dundee procès bi fii nii ak seen famille lan ak lan ngeen di delloo famille bi genre naka ngeen leen koy waxee ak pression bi yéen seen bopp naka ngeen koy dundee. ne ko metti na trop si ñun parce que ñun xamuñu ko mosuñu man boog muy laasana muy famille Daraame. mosuñu taseek ay policier sax ba yegg ci tribunal tribunal ñun fii lañ ko dundee métti na ci ñun trop noonu la méttee ci famille bi noonu lañ amee njaxare tamit ndax chaque jour ñu ngi wut ay information yu jógee ko ci ñun pour expliquer leen ko ne ko loolu mooy suñu problème mais à part loolu amuñ benn problème ndax xamuñu tribunal mosuñu yéeg ci tribunal waaw xamuñ sax lu muy sax comme tamit projet bi ñun ñu ci jot a xam mooy lu néew luñ mun luñ jot a comprendre ñu ngi fexe ba képp ku ko inter koo xam ne ñoo xam ne ne intéressé na leen Sénégal ñu bëri parce que dañu laaj di informé wu fan la projet bi toll ak nan ngeen ci sentir seen bopp lu luñ ci jot a comprendre lu néew ñu ngi fexe ba di ko partager famille bi ñuy comprendre tamit ñun yan situation la ñu dund ci projet bi luñ ci jot a comprendre ñun lu néew lépp ñu ngi koy partager ak ñoom di ñuy comme tamit ñëpp képp ku intéressé wu ci projet bi di comme di laajte dañuy wax ne comme tamit ñoom dañu am njaqare si ñun que ñun lii mosuñ koo dund waaw léegi ñoom dañu nekk di ñu laaj comme yéen tamit nan ngeen dundee foofu noonu projet bi boo leen demee tribunal mais tamit wax ne métti na ñu koy ñu ngi koy dundee métti na méttiwul parce que am na ñuy jàppale mais lépp luñ ci jot a comprendre mooy lu néew rek dañ koy fexe ba ñun tamit ñu expliquer leen tamit waaw donte comprendre guñ lépp xamaguñ tamit affaire yi fan lay mujjee ba lépp luñ ci mën a comprendre tamit ñoom dinañ fexe ba ñëpp yëkkuñu waaw nee na euh, li mu jot a dégg mooy fi ngeen jógee dafa nekk euh, kii dëkkuwaay bu xaw a rëy léegi ndax euh, nit ñi seen intérêt par rapport ak kii bi intérêt bu rëy la walla nu mu demee. ni ko intérêt bu rëy la parce que Mouhamed ñëpp a ko xam waaw ndaxte ñun foofu eh, bokkut ak fii nii ñun suñ dëkkandoor. village dëkkandoor famille lañ koy jàppee man nu ma ñëpp xamee mu xamee noonu la ko ñëpp xamee Laasana noonu la ko ñëpp xamee waaw pendant plusieurs soixante quinze villages yëpp am nañ intérêt parce que yëf yi bu mu xewee ba tey ñëpp koy méttitlu et puis soixante quinze villages yëpp ñoo réuniroon def marche tamit foofu waaw intérêt bu mag waa waa fii nii nuñ ko amee intérêt benn am na intérêt fukk ci Sénégal bu ñu amoon moyen pour ñëw fii ni fii ni policier yi duñ leen mun a téye ndaxte biir tribunal bi dana fees dell su booba. Ich würde gerne auch in Richtung der beiden Brüder sagen, dass ich das ähm, ja, sehr beeindruckend finde, dass ihr hier in Dortmund seid, dass ihr an dem Gerichtsverfahren teilnehmt und dass ich äh, euch ganz viel Kraft noch für die letzten Gerichtsverhandlungstage wünsche. Also wir sind auf jeden Fall an eurer Seite und ähm, unterstützen euch da solidarisch und hoffen, dass ähm, der Prozess dann auch ja, in eurem Sinne ähm, und auch in Mohammeds Sinne dann zu Ende geht. waa nee na moom lu muy euh, lu muy mujjee euh, lu muy tëjee wax bi mooy da leen di euh, jaajëfal mooy courage bi ngeen am ñëw fii nii toog ci salle bi di déglu lépp lu xew waaw nee na lu mu leen di ñaanal mooy ngeen am doole ba pare di ñaan aussi affaire yi jaar si yoon pour Mouhamed ak pour yéen aussi mu nekk loo xamante seen ñëw bi dina am njëriñ te dina doon loo xamante ne genre succès lay doon pour yéen. d'accord kontaan nañ si bu baax aussi si question yi ñu posé en tant que rajo Nord Pôle nest pas waaw parce que yàgg nañ dëgg ay mbiram tamit ci yëf yi ñoom tamit demuñ demuñ de demuñ bay affaire bi ginnaaw ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax tamit bu dee na am na lu mu leen sànni aussi. waaw man tamit comme loolu rek. ñu ngi leen di remercier bu baax parce que <clears throat> affaire yi donte yombul si ñun waaw donte yombul tamit mais ba fu ñu toll nii tamit ñu ngi leen di jaajëfal parce que ñoom yëpp ñun gis nañ seen taxawaay tamit te ñu ngi dëgg kenn ku ne liggéey boo ciy def waaw ñu ngi leen di jaajëfal ci question yeeg lépp waaw. ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi jàppale siidi ak Laasana ñi ngi jàppale Moustapha tamit ci waxtaan bi ñi ngi wone suñu njàppal ci seen wet ñi ngi nuyuwaale famille bi nekk njaafaat ca Sénégal fu dëgg amul jàmm du fa am lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen ko waral daal ci Sénégal dëkku gay ne mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin di béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee lay demee fa ngeen may foofu lay jubal di ko jubant di jubant bëgg naa leen ni bu sew mu ma wax ju sew ni bu sew mu ma wax ju sew ah képp bu sew dafay dundal bëgg naa leen man yéen laay delloo njukkal Sénégal njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a waral daal ci Sénégal mooy dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ni dëkkal ma bësin ma bëgg ñan lañu ni ma mel yéen a ko waral daal tey Sénégal ak ku gaynde njaay du mooy sunu gaal junjun ya cësin dëggal ma bësin ak junjun ya cësin ni dëggal ma bësin junjun ya cësin dëggal ma bëgg naa leen foo def Sénégal fii Sénégal fa ngeen def yow sunu fii ki nga bëgg mu bëgg béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fii ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen. nañ leen ko jow gal gi jëm ca kanam. bu ki tin solo saa su ngeen bëggee